ni hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul harshil azim sabaha marratin juróom yaari yoon neena saa yoo xëyee fexeel ba wax hasbiyallahu jooju juróom yaari yoon bu ngoonee itam nga wax ko juróom yaari yoon moom nag lu ñu fonk fonk la wax ne ne saa yoo ko xëyee wax mbaa nga gont ko wax rek faw yàlla fegal la lépp loo xam ne moo doon sa yitte ju la jaaxaloon faw yàlla taxawu la ca ba sag jaaxle dañ ak yitte ju mën di doon moo xam bi nga koy wax xam nga li baat bi tekki te fas ko ci sa xol wala sax xamoo ko mbaa xam nga ko waaye teewlu ko du tee rek ñu defal la loolu nee nañu ba tey nee na ngoon na wax bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi shay'un ardi wala fis samaa wa huwa as-samiul yoon moom itam baatu musluwaay la bu màgg a màgg bu ñu fonk fonk fexeel ba subaa ngoon gune nanga jàng qul huwallaahu yetti yoon jàng faalaxi naasi kenn ku ne yetti yoon nee na fexeel ba subaa ngoon gu ne na nga jàng ñaan gi ñu wooye ñaanuk Abu Dharr